Serigne Gobe Seck Saloum Saloum bi lami de Ousmane Sonko lami de président Diomaye réew mi jaxaloon la wax dëgg yàlla bi ngeen gañee ba tey moom ah, semaine bee rek juróomi crime ci benn semaine waa ñu rey ci Tivaouane Peulh ka ñu rey ca Grand Yoff Aziz Dabala ak Waly ka ñu rey ca Apix ñu rey ca Bargny maanaam deret ji bari na torop torop suñ Gobe nuyu daal balaa nga naan dama leen a kon alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilah alhamdulillahi xaqa hamdihi alhamdulillahi hamdan yuwaafi nixmahu wa yukaafi masido wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbi wa sallama ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di ñaan yàlla cépp ki koy seetaan rek yàlla nañ ci jëlee njëriñ saayiran wa baatinan buur ah tool yi jeexagul waaye mbay mi jeex na mbay mi jeex na tàq fi mel mbay mi jeex na ñuy xaar mbokk yi mboq yi ñor. ak gerte gi gerte gi ñor dugub ji ñor. mboq bu ñoree dugub ñor gerte ñor. ñi dem jéeri indi waaye nag jamono jii réew mi dafa yëngu. Mhm. te li ko yëngal dafa bëri. yaa ma gën a xam ñëwal ma leeralal la si réew mi loo xam ne. buñ ko defee lépp jeex. ma ne seen nguur gi ni mu tàmbalee neexul. <laughs> alhamdulilah xam nga. sanc kër rek mu neex. yombut de sanc ko tey mu neex tey maanaam dugg naa si koñ bi ñëw naa dakaar tey mu neex mu neex tey. yombut de waaye ci mën na lay neex su ba xeexeeñ waaw xam nga réew mi naqariwul nag xam nga lu naqari. réew mi képp ku lay jàmbatul su dee si wàlluñ am-am la ku lay jàmbatul ku ne. daa fekkoon yorul lu wér wala entreprise am baaxutoon. waaye dana dégg beneen bi si topp bu dee ray yi la ray yi moom am na lu ma la ci war a wax loo xam ne. su ma la ko waxee ñépp dañ xam li xew ci réew mi te incha allahu rabbi dinaa ko leeral ci biir ba mu leer loo xam ne ñu bëree bëri wax neen si waaye kenn du si duut baaraam ndax li ca nekk dëgg dëgg dëgg ak la nekk ca biir ak li nekk ci réew mi ak lu ñu war a leeral dëgg-dëgg tey saalum saalum bi dana ko wax. mais leeral ko xam nga man man bëgguma di wax sax ci ci nguur gi ak yow parce que su ma ci waxee da dem léegi ba da ma jàppee ak opposant loolu amul problème wax sa xalaat la waxuma ko sénégalais ko wax deret ji ni muy tuuroo bari na alhamdulilah xam nga doomu aadama moom weer buñ ne doomu aadama kenn dee na te dañ koo jàmm dee rek musiba la nit moom ak nuñ ko mën a reyee su fekkee ne ab doomu aadamaa ko rey rek musiba xam na nit dafa feebar dee coow du am mm-hmm. nit dafa accident dee coow mën naa bañ a am ndax loolu dañuy xam ne lii sababu si borom la waaye ana diw sàngam sëñ góobe jaar na fii jam neen ko mu dee loolu moom ku ne xam ne ne baaxul si réew jigul réew mi jigul dakaar ndax man dama seetlu sama benn xarit dama ko woo fan yee na ko génnal defal ma nangam si côté Kër Massar mm. mu ne ma mukk génn guddi Dakar léegi banaa ko kenn waaw kay waaye nag dafa am la ne ca biir manuma la koo leeralal léegi bu ñu waxtaanee si xam-xam ba sama yaram neex danaa la wax la ca biir waaye réew mi dinaa la wax sarax dinaa la wax si Diomaye ak Sonko loo xam ne lu ma leen di faral faral dinaa leen wax loo xam ne tey di si xam dara. sëñ Ngobe fi may njëkkee réew mi ni mu mel dangereux na donc buntum kaaraange dafay feeñ mooy aar sa bopp aar sa alal aar sa njaboot ñag sa bopp. alhamdulilah. xam nga kaaraange moom boo di ko gëstu di ko gëstu di ko gëstu di ko gëstu ba dugg Saalum dugg kafrin dugg Koungheul dugg Pakala mm-hmm. da nga am kaaraange ndax yàlla dafa dogal dañ koo kafewut waaye buur kaaraange moom maa si yor loo xam ne ku ma ko jox boo diiree ñetti weer na ma sëñ bi dolli ma leneen loo xam ne day jëm si ubbeeku ndax kaaraange gu ma yor dafa am doole ba nga xam ne boo ko yoree sax bu yàggee mu tëj la mm-hmm. Mm-hmm. waaye nag nit ki duwul ne lii xew si réew mi kaaraange moo koy saafara déedéet. lu koy saafara. li koy saafara danaa la ci ñëwal wax naa la danaa la. ñëwal ñëwal sëñ Gobe. Ah, ndax man sama waxtaan. Mm. dafay cosaanoo si xam-xam. jeexee sa njëriñ. Mm-hmm. ndax xam-xam da koy commencé wax nga dem ba muy jeex ñëpp xam ne njëriñ laa ngi nii. Mm-hmm. mu ngi mel ni ñi lay léebal. sa fin ba la ñëpp di ree du dëgg. la noonu la demee. Euh, booy wër kaaraange. man maa yor si kaaraange loo xam ne su la neexee doo takk doo naan. alxuraan su nit ki di sangoo benn yoon la. maanaam bu la neexee nga sangu benn yoon. su dee kaaraange goo xam ne dafa jëm si kaso. li ma lay defar si nen la soo paree nen ba sa armeel ya nga koy sànni pare nga si kaaraange yow ku la dugal si naka su du noon ni sul ko hmm. yow kay nen bi fexeel ba indil ma ko ba ma def li may def jox la saafara beeg nen bi nga sangu ba pare jël nen bi sànni sa armeel ku la jéemal naka su du noonu ñi sul ko su la neexee ma jox la kaaraange goo xam ne nii benn yoon nga koy sangoo fi ngay fi nga koy sangoo tey si misaal boo koy sangu dangay taxaw foo xam ne leer na la ne kenn mënu koo yëngal ku la buuse mm-hmm. tey mu ngi mel ni sa oto bi nga jël frein yëpp mm-hmm. kii ko te kenn mëntu ubbi oto bi ñu ne neen ko bóox dana dem du dem noonu lay mel nag fexeel taxaw foo xam ne kenn mënu koo bóox nga xool kaaraange moom moom yàlla suturaal na ma si taw yàgg naa laa wax nela la ku weddi na ngóobe sekk am na kaaraange wala amut mosal xool. xam nga sëñ li ma jaaxal bi Sonko ak Diomaye di soog a falu sëriñ yu ba dañ toog dëkk bi dina neex nga ni lii ak lii ak lii buñ ko defulee maanaam loolu lan lay wane mooy mën a seetu sëriñ ngóobe waxuma sax événement yi ñuy ànd man ak yow ndax ànd nañ ci événement yu bare bari bari laga nga ci wax noonu lay demee. mais da nga njortoon lu mel ni wala da ko gisoon. alhamdulilah xam nga ab ab nit maanaam duma wax sëriñ waaye doomu aadama même buur simple bu ne neen saraxal nangam rek neen ko saraxal. ji nga sarax dafa nekk loo xam ne lu kemtaane la. Mm-hmm. maanaam téye dara buur romb nga yëkkati ko na ko am yàlla jox la. maanaam dafa nekk lu tuuti lu xeebu waaye lu mën a saafara lu ne waaye dinaa la ñëwal si sarax bu réew mi war a def ak fu fan la jëmee réew mi xam nga waxoon naa la na la réew mi neen ko saraxal lu ko may mën naa métti métti gi nag mu ngi nii wax naa la na la borom làmmañ woo xam ne du waa du gaaw a àddu waaye saa bu àddoo nit ñëpp dar seen gémmañ neen fexe bu mu àddu mm-hmm. te loolu suñ borom dogal nañu ko su ma ne la joxañ na la moytu lii ba illaay yow mi diini soo ko moytu danga dugg si kàmb te loolu suñ borom dogal na ko saa buur gis naa nangam ci nangam ci nangam damay dox ba dal ci loolu nag mooy dëggi dëggi nit koo xam ne dafay seet mhm. maanaam nit koo xam ne liggéey na turu yàlla xam nan la ñuy seetee loolu mooy dëggi dëggi seet gi buur dama ne la man man ngóobe sekk nga soxla xam dara si sa bopp mu di la lënt te nga jot ma loolu sin borom bindut ko waaye nag jamono yi may wax a yow seet lu néew laa ciy def. la waaw ndax dafa nekk loo xam ne man xam nga ñu bëree bari boo waxee dañ naan la seet mooy buntum ñaan. Mm. man seet du sama buntum ñaan. loolu sa buntum boo ñëwee sa sa soxla soxla bi nga indi. ma ko force. xam nga tey am na ñoo xam ne bu ñëwee dañ naan la sëñ bi man de damaa bëgg nga noobal ma sama diggante sama boroom kër na bëgg naa nga seet. waaw mag buur. sa aawa bi ñaata at ngeen sëy ëpp na léegi nga ñëw na ma am neen jafe-jafe seetal ma ko su ma ko seetee na la baaxu tim doo tourné na sëriñ bi lu mu wax du dëgg dëgg la su ma ko seetee na la gaaf dafa si ne looy wax du dëgg ndax yàgg neen jaar neen si lii danaa daan am lii danaa daan am lii léegi laa tëju hmm. dama koy regle ba nga xam ne régler wu na ba lépp kii bu fekkee na nag dangay ngay soog a fas man duma la sa duur sax yow yaa may propose seet gi waaye man maay seet hmm. ndax yonent bi ba mu ñëwee dafa ne diglewut benn seet lu dul sëy mhm. balaa ngeen di dugg ci sëy di leen ko seet kon képp ku ñëw jëm ci fànnoo danaa la seet waaye dama ne bu dee téeméeri nit la ñoo ñëw di ma soxla seet tim surne bi manuma si seetal lu paase ñaar wala ñett mais nag sëñ Ngoye man jamono yi dama ne danga ma ndurug léegi nekkatoo sëriñ sëriñ buy ñaanal ay baadoola la bëgguma laa certu macha allah car macha allah suma xalaa xaala xi na ndax maag yow eh, eh, yàgg nañu sëñ Ngoye ponkal yi nga bëgg jël teg ko sunu kaw ñun ñun baadoo la itam déedéet man nag aw ma ponkal xam nga man lu ma am engagement laa am man engagement lay doxee. ak gëm-gëm. maanaam nga ñëw yoroo dara ma engagé wu si yow. mbër mu mag mu day ca làmb jooju soroon yére boobee balaa arbitre di siffler sëñ Gobe man du ma ngaaka ci dëkk bi laa dëkk. <laughs> man engagement laay jël damay jël engagement xam nga man man ñu bëree bëri danaa leen romb dama leen di romb rek di jàll li ma leen di xamal kenn xamul nu mu toll waaye ji nga su ma xasee jël si nit engagement. ba ne kii maa koy defar barki Seydina Mohamed day defaru ndax li ko waral mooy euh, nit ki balaa ngay sëri si moom dangay xam lan mooy defar mhm. maanaam tey buur bu ñëwee soxla alal da ngay xam kan mooy buur bëgg am xaalis ak bëgg am alal du benn maanaam nag ji nga alal dafa sokkee ko si buntu xaalis su nga mën nga maa ñaanal force ci mu neex mu naqari force man kay ndax si yoon wu leer wii laay jaaree yow wala si yoon wu lëndëm wee kay laay laaj. waaw man kay loolu laay laaj ma ne force nag maanaam kay man danaa xam si yoon wu ma si war a jaaree yow waaye force neex la mu naqari la neex ki la ki nga dend ak naqari say mbokk ak naqari ñëpp force da nga am alal. koo ñaanu moom alal. barki Seydina Mohamed du ma départ ak kenn kanaa xamoo ne man. su fekkee ne da ngay jaxasoo nit ñu weex ñi. Mm-hmm. maa lay ñaanalee sa fa buyital la si eh, eh, kafara. Mm-hmm. fa buyita la si kafara mm. bu fekkee ne dangay ngay nit ñu weex ñi nga xam ne danga bëgg ñu jublu la tubaab nga xam ne ay lobi nga bëgg ñu jublu la fa buyita am na lu muy ànd ak lu doy waar waaye barki Seydina xam ne du ko laal nit ku weex di la bañ xam nga fa buyita la si kafara fu mu soqee ko sëriñ bee xam na ko sëñ ji laa ilaaha illallaah xam nga fa buyita tey mu ngi mel ne tey xéeféer yi ak euh, jullit yi ñuy xeex bañ demee ba nga xam ne jullit yi moo ne neen maanaam mu mel ni yàlla dafa sànni aaya wane ne ñee gañe neen leen maanaam yow boo koy laal ñoom dañ lay nangul foo nekk dangay féete kaw mu neex leen mu naqari lay bëgg léegi nag bu fekkee ne koo xam ne moom moom doxul si euh, euh, ay wàllu euh, nit ñu weex ak yooyu nga xam ne da ngaa bëgg am alal rek kaay ma dugal la sa fii jii daa fii fii jii daa sëriñ bépp sëriñ bii dox ñi présenté la secret fii jii daa xamal ne ku la présenté naxul la bëgg na laa dimbale sa alal xamul lu ko gën a gaaw si alal ah waaye yow loolu kay bul si sëri fii jii fii jii daa kay xam na yoo xam ne sax sëriñ yoo xam ne sax buñ ko déggoon laaj laajal euh, sëriñ yi na leen fii jii daa ak kaña kaña kaña genn kaña laa <laughs> la la bindal som bu nga bëgg ma jox la nangam sa kaña nga poosu ko mu neex la mu naqari la boo doon dund ñaari fan si kaw suuf sax bu dee milliard la danga ko am buur dama commencé dox sañ-sañ lay doxe léegi doxeetuma ay naan dama lay esewel esewewuma dangay def ñu gis force saalum saalum baa ngi ku ma defal gisoo ñëwal sac mbaaw rond point si presse boo fekkee maa ngi fii foo laajtee kër Saalum Saalum bi ñu joxoñ la ko nga ne nga ñëw. boo ñëwee ma delloo la sa xaalis. barki Seydina Mohamed dañ du àgg sax si delloo ndax xam ne ñoo xam ne ma leen di liggéeyal ba mu neex ñi soog maa fay moo tax du du métti sëñ bi doxantuwuma su la neexee boo ñëwee bëgg alal téyal ba mu neex ba mu pare soo amee soo ne ma cent million soo ko amee nga jëkkati bu ma la laajee million nga jox ma ko. waaw wala bu la neexee nga. di yow kon kay sëñ fan yi leer tax kay nga am xaalis sëñ Ngobe ni nga leeree nii. Ah. ak macha allah. suñ goobe man xam naa la lu man juróomi at yàlla daf ma dimbale mosuma mosuma ñàkk. waaw d'accord suñ goobe yenn xeetu ñàkkin yooyu. suñ borom su man man xam naa la ak xam-xam xam naa la ak teraanga mais dama ni fan yii temps yii sa loxo nga ci soos koo ñaanal ba moom xaalis yëkkati ay millions jox la dafa am loo may nëbb man am na ñu ma ci xam. waaw loolu moom wax dëgg ah, ah, yàlla loolu moom loolu moom ay toni ceeb ak ay ah, alal moom kay buñ nii moom sin borom ak ma si suturaal si fànn wone wala ngaa wala ngaa bëgg ma tudd ay tur <laughs> déedéet jarako barke alxuraan bu la neexee ma tudd ay tur bul tudd man ragalu ma de bul tudd da ngay déglu ma wax <laughs> xam nga man xam nga man ni may doxee damay doxee noo xam ne maanaam man li ma sama way jur daan ma wax naan ma defar ko mu lay defar moo dàq yaakaar si moom wéccat mu pare dem maanaam ab ab sëriñ boo xam ne day toog naan client ñëw na xaaral ma fexe for ci moom dara mu dem keneen ñëw man doxewu ma noonu man ma lay defar nga may defar. ma lay defar nga may defar sëriñ Ngobe Seck Saalum Saalum bi man ak moom yàgg nañu de dama leen koy wax de yàgg lool lool lool lool lool lépp sax kenn mënu ko wax ndax moo ma ne waaye dama doon jaar ci digg bi ndax ki may waxal réew mi xam nañ ko ñépp xam nañ ko diine ji xam na ko wala mayam foofu. waaw <laughs> sëriñ damay ñëw nag ci daj jëpp ki balaa ñuy jeexal réew mi am na lu mu laaj sëñ Ngobe góor yàlla nga sëñ Ngobe saalum saalum nga sëñ ñaankatu yàlla nga góor yàlla bu yàlla may këchfu nga man xam naa ci dara mais réew mi tàng na lool lool alhamdulilah dañuy waaj dugg ci weer woo xam ne képp kiy jullit weeru mbégte la ci yow moo tax man sëñ ngóobe saabu jotaan daa xam yu ma si daan def danaa ko feddali donte fan yii moom da ngeen ma gis lu bëri waaye weeru gàmm lañ jublu si mm-hmm. mii weeru yonent bi weer la woo xam ne saabu jotaan sama liggéey bu ma si daan defal nit téeméer mm-hmm. cent franc laa lay laaj def def ci promotion ndax jëmm yonent bi waaw ndax yàlla dafa dogal ne maanaam lu tax sax mu gën a neex mooy ne duma ma si liggéeyal nit lu ñu naan déeréet xam nga daaw ñëw nga fii ma ne la guddi gàmm suur bi nga xam ne ñi ngi gàmm toog si tànt bi bàyyi ñes di tagg yonent bi guddi góog la ma sama papa wax ne ma guddi góog nga judd guddi gàmm guddi gàmm laa loolu moom new ma si si ay caaxaan new ma si ay leneen guddi gàmm laa judd man weeru gàmm mooy sama anniversaire si olof mm-hmm. moo tax bu jotee lépp loo xam ne maa ngi koy ñaan dama koy garante Mm-hmm. moo tax soo yëgee gisee ni may waxee nii nga xam ne maa ngi jub toog mbégte mm-hmm. waaye bu loolu yëpp jàllee yàlla dafa dogal Sonko jaar fi Diomaye jaar fi ñu bokk si ñi nga xam ne dañ koo gëm te wóolu ko te di ko xeexal mm-hmm. ba seen borom dogal li nga xam ne moom leen doon yóotu ñi am ko am koog mbégte am koog dal am koog bànneex man nag yàlla dafa dogal ba ma siy xeex dugguma si woon ngir ne buñ faloo ma am lii buñ faloo ma am laa wala ma am bunt wala may jaar si kilifa yeeg yooyu hmm. soxlawu ma dara ba nii may waxee yow mosu maa teg bët Sonko bët ak bët hmm. waaw mosu teg bët Sonko man loolu. mosoo gis Jomay. mosu maa gis Sonko mosu moom xam naa ne danaa ko gis. Hmm. waaw ndax xam na lu tax ma wax loolu. kum neex ak kum naqari dinaa ko gis te danaa toog ak moom. force. voilà force man lépp lu may wax dama caa pare. waaye nag. réew mi buñ ko saraxalu dana gën a métti kanaa yow euh, buur kanaa benn kilifa temps yi junjuñ la na la déegi xam si côté xur wi waaw dee googu mooy gën a doy waar dee yi dee yu paase nii yëpp. kon lii dara nuyoo maanaam dara la waaye dama xam ni réew mi li fi war a sotteeku ci deret buñ teelu te defal sarax réew mi mooy gën a métti. mais sarax ci nen ak ban sarax. ak koy def xam nga. ku dégg moo neex a wax ak mm-hmm. ku xam moo neex a wax ka waaye ku xam kan mooy wax moo neex a wax mm-hmm. dama ne dee yu paase nii doy na waar yéeme na waaye dafa am la ca laxasu loo xam ne fii ak fan yu néew da nga si dégg mostu dégg si faatu mm-hmm. ah, si dégg lu doy waar waaye nag ji nga Sonko ak Diomaye jamono yi daañuy xaw a yëngu tuuti si mystique waaye nin si gën a yëngatu te itam nen defar réew mi sarax même bu ñuy ab 3 millions ñu yëkkati ko def ko ay gàtt ñoom xam na ñuy jege jege neen seex Bara Ndiaye jege neen nàngam te leer na ko ne bu ñu ko laajee dan leen wax sarax xam na bu fu mu mën a jaar même bu moom sa boppam mën naa xam saraxu réew mi wala keneen ku ko jege xam ko ñi wax ko saraxu réew mi ñi def ko mm-hmm. ji nga sàndarma yi tasaaroo yépp loolu réglé wul mbir mi ndax déggi falaa force la bu buñ doon tëj adduna mbiru baatin la mbiru biir la faaw ñi def sarax hmm. waaye nag euh, jamono ji hmm. kilifa yu bari neen fagoro am na kilifa goo xam ne dañ ko def lu ñaw bu ci bu si bu si jëlee wut faatu dina si jëlee gaañu gaañu bu mu doon wax fen deretam dana tuuru ba mu yuux kilifa la mënumaa wax ban kilifa la waaye kilifa la moo tax nen fagaru nen fagaru réew mi dafa laaj fagaru mm-hmm. kilifa yi nen gën a deferu nen gën a deferu mm-hmm. ndax dafa am ab xëccante yu ne si biir li waral mi laaj tur deret jamono élection yi dañ fee defoon mbiri tur deret mm-hmm. ñi dikkaat ministres yi di fadu ñi def fi ay xëccante xëccoo léegi nag yépp dafa booloo jaxasoo doon benn nen fexe defal ko tuur mbir mi jeex dégg nga buñ ko defut buur da nga ñëwaat fii na ma dee yi daa gën a doy waar man nag lii ñëw xaw ma si dara yëguma si dara waaye doomu réew mi laa te dama daan xeexal réew mi te dama daan doxal réew mi te billaahi saraxeel naa Sonko ay yoon yu yoon te kenn yëgut waaye lii du lu ma mën a defal sama bopp man du ma nëbbu su doon lu ma mën a def la duma ko wax si mikoro mm. waaye ñu si ñu si nguur gi xam nen am na nag ñu ma gis ñi génn naan ay euh, El Malick turam nangam jomay turam nangam nangam nangam du dëgg. Hmm, te du dëgg yooyu yëpp ay fen la réew mi ku fi gën jomay amut jo Sonko mu toog sax moo fi gën jomay ndax yàlla xam ne Sonko moo gën moo jomay euh, moo gën moo tax mu jox ñu ko. dëgg la bu ñu fi nekk naan ay diw mii la diw mii la diw maa la gis naa ko génn naan El Malick Ndiaye jigu réew mi accident yi bëri na du dëgg. Hmm. du dëgg ñépp a jig réew mi ñu gën la fi yàlla teg te ñu gën ñoo koy defar ñi ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm di wax ne jot moo amutoon waaye ba ñu maa génn sama nit ñu bari dañ maa woon na ma ndax dangaa feebar mm, feebaru ma dara dalun ma damaa ne si liggéey su ma nexee si liggéey damaa ne si li ma war a ne jëri ngeen jëf